madame pare nga pour ñu dem. Ah. bu ñu la tàllalee da ñuy wax sa tur ak sa sant ak lan nga doon ci njabootu coono bisimilah. asalaamualeykum mbooloo mi maa ngi leen di ziar kenn ku nekk ak turam di la nuyu la jax sa wàccuwaay di laaj naka sa jàmm yaram di wax yal na yàlla baal làq na fa làq yeggul ñu ngi ziar te la yëpp ñu ngi leen di ziar ñëpp ñu ngi leen di ziar man maay ja Ngom doomi Duudu Ngom ak Fat Jum Njaay man maa dëkk kipp maa liggéey am sama kër dëkk kipp dendeeg waa ñii affaire bi dal man nag maa ngi leen di seddal ne ba ma juddoo ba léegi maa ngi sama juróom benn fukki at yu manqué benn mosuma def dëli xawma xaw ma dul liggéey dem ñëw wàcc marché Bargny laa nekk waajuru xale bi marché Bargny la nekk am fa place ma am fa place mais dama ne man mag maami coro xawma lu dul lu baax moom la ma ñëpp xamee tout le monde bu gisee boobu ba léegi dugg nu ñun dañu xamoon kes affaire bi lan la li tax lan la man maa doon togg dëj bi ndax dëkkandoo dëkkandoo dafa metti mais xawma conséquences yi lan la man tey si suba muy démb laataal dégg lu ne ma di ko dégg baayam dafa feebar bi nga hôpital pour lan doomu jàmbur pour lan doomu jàmbur nga jël lu ñaaw nga di ko ko wax doomu jàmbur ku ne am nga doom coro fukki at ak ñaar la am maa jur baay mooy sama taaw coro si boppam xamul dem xamul dikk jàngi suivre ay kayam la xam mi ngi sama wet mi ngi may raay amul benn problème xale bi ñuy wax ne mooy ànd ak coro muy waajuri ku góor ki dama ne doomam la waaji di doxaan parce que Seydina Mouhamed doomu kan duma àgg si tur parce que bu ñu wax àggul sama tur muy parent ku kii ki ñu rey seen doom ay param dégg nga waa ji reye seen doom laan doxaan bi ñuy wax maa ngi dégg lépp jaarul sama tur duma jaar ci turam parce que bëgguma tooñ mais di ma wax maa ngi koy dégg dama koy dolawaat mu wax ne moom cooro mbuub la waa ji doon doxaan jamais man dama oor yàlla moo ma gën a doom aadama parce que xaw ma dinaa fanaan wala dee dee yi bari na nañu gëm su yàlla te delluwaat suñu bopp si yàlla wax bu ñaaw bu métti na si weeru koor fukki fan yu mujj yi dëkk dafa yàgg ay doom sama kër lañuy ñuy ferkante guddi ak bëccëg dañ fay tibb si xorom dañ fay tibb si xal ma mujj ma ne eh, xale bi dégage xal kenn ko tibb si kër jàmbur ndax lépp dëkkandoo la mais bu ñu boo fekkee ne ndog dafa daanu sa kaw ndog metti na dee bakkan metti na mais après na nga wax lu rafet na nga wax lu rafet dëkk dafa yàgg ñun mag ñi dañuy dem bàyyi fi xale ñu dëkk mais nag bu rafetee day continuer mais jël coro mbuub coro mbuub coro mbuub coro mbuub maa jur baayam. li nga doon wax sànq ne dafa dañ ko doon doxaan daf da nga am lu la si leer. coro xale bu jigéen bi mooy sama coro mais waajur ku góor kiy wax ne coro mbuub la doxaan amul na xool yàlla doomam la doon doxaan parce que bi ñu bëggee affaire bu leer doom lañu fekk école. kan ma doon doxaan doomam ci li nga wax. muy waaj yi kii rey la ñu wax. mama mama ñun ñëpp dëkk képp. Mama Amady moo doon doxaan doomi waajur ki ñu rey. kon lu ci coro doon. coro day ànd ak doomam coro day ànd ak doomam ñooy ànd chaque jour bu ñu dem di jàng nooy bokk sax si pes yi ñuy entraînement ñooy bokk lépp xale bu jigéen bi si boppam moom la am doon doxaan barka yonent bi dama or moom la doon doxaan moom ay waajuram xam nañu loolu. est-ce que bokk woon Fatam ak coro. non non non non non bokk far benn góor bu ñaari xarit mën nañ ko bokk far. loolu mënul nekk wax bu dofee nopp yi koy dégg dofuñu wax bu dofee nopp yi koy dégg dofuñu lu boole coro ci mbir mi lu boole coro ci mbir mi moom waa ji day doxan xale boobu wa fi mu déegi am léegi li leen xamal xale bi fi mu nekk portable bi ñu ngi ko jëlee ci xale bi école coro mbuub ci boppam day ànd ak xale boobu muy waaju fiir déegi am day ànd ak seen doom parce que benn kër la matul nii benn kër la gën génn fi dugg fii ñuy ànd man sama Coro Mbuub si boppam dama ko daax nakaan Coro Mbuub mu ne ma naam ma ne ko man dugg bi ah Coro diw mi ngay àndal neexuma mais loolu papaam wax na ne am na ku ko wax ne na bàyyi muy fréquenté ndaxte. non non man la ànd bi neexul ak doomam moom papa ji wax man la ànd bi neexu mu wér yàlla wér yonent bi may wax Coro bàyyi ko bàyyi ko. li tax ànd bi neexu ma maanaam dama bëgg mu suivre ay kayam. kon xale bi du jàng xale bi day jàng ñoo bokk école mais man dama bëgg sama doom suivre ay kayam kenn ku nekk sa doom ngay compter pour mu suivre ay kayam ma nekk na ku nekk toog sa kër di suivre ay kayam. loolu wóor na mbokki parents yi que man mbokki parents yi duñu dem lante. léegi léegi lan mën nga ñëw ci lan moo yóbbu woon. coro coro boobu da jëndi këriñ. bi muy jëndi këriñ xale bu jigéen bii ñu faat di sama sët ne ko coro may ma màngo mu ne ko màngo bi dafa jeex nañ dem ma may la kër dem ba jënd màngo ñu ànd dem jënd ko màng si yoon bi bi nga ko jëndalee màngo ñu dem di jënd mi ngi boot sëñ fàllu sama sët barki dem laa ko amagul sax weer léegi euh, amadi bi gis coro ne ko coro kaay yóbbante la si sa xarit mu wér yàlla ndax seen diggante la kaay ma yóbbante sa xarit coro dem xam nga koo miin ñuy waxtaan comme moom la daan doxaan ñu ngi xaritoo ñooy ànd ki ngay doxaan sa xarit ki doxaan dangay koy xam parce que yéenay ànd sa xarit bu dee bu ko amee koy xaritam dangay xam ki koy parce que yéenay ànd tout temps yéenay ànd xale bi day ñëw sama kër di dem seen kër di fa añee léegi mu ne la coro topp ko ak liir bi mu boot sañ fàllu xale baa ngi téye kër ngi coro àndal ñu dem muy di ko mbalang ñu dem ba àgg mu ne coro damay tëdd ak yow par la force mbaa ma rey la rey kii rey xale bi nga àndal génne paaka paaka ben gis nañu ko génne mbaarik bi teg pamti pamtee coro ba xutti tubay jiinam yegga si moom versé ko liir bi ñu ngi ko teg ci ñax mi boobu ana xale bu mi ngi téye kër ngi taxaw dégg ñu rey Anta Ndiaye lay wax ndax fekkee na scène bi ngay nettali noonu jote ba. voilà fekkee na ko fekkee na ko mu ngi taxaw yore këriñ gi coro mi ngi tëral sañ Fallou doom ji ñu ngi ko tëkk waa ji moo tëkk cor doom ji teg ko ne si bi doom ji sax fu nekk dañu koy bon hôpital bébé ya parce que kenn xam kay se passe kenn xam ko këdd wala lan. am na gaañu gaañu. xale bi dañ ko yóbbu hôpital di ko suivre papaam sëñ Bamba ndax bi dafa xale bi dafa ñëw di appaat ma ne ko kii yóbbu ko ndax tegoo ko tànkam wala déet. waaye dara dagul ci moom. mais dañ ko jax ay garab ñu ne dënn bi poussière bi la léegi coro xale bi yeggat si moom daal di xale waa ji génn ne ko yow mu yaa may xool parce que juróom-ñaari xale da ngay xam mu def loolu moo xam. donc si kanamam la si kanamam la ko defee. si kanam ki mu fi yole ki ñu fi yole mi ngi tëdd ndax ku ñu fi yole ngay xale dangay ngay feebar mi ngi tëdd mi ngi xutti tubay jiin yi am di mi ngi xutti tubay coro sama sëpp. cogo jiin la soloon. te tubéy jiin la soloon. donc Amady moo violé moo def moo def acte. moo moo violé moo def at bële. d'accord léegi balaa ñuy sori. waaw sa cogo bu ñu ko violé ku ne xam ne jànq bu ñu violé. na lu mu génne ndax am ngeen certificat médical bu firndee ne egg nañ ci kaw parce que nañ dem di ko xool. voilà bi ko defee noonu. yoon jël leen yóbbu coro mu ñëw ñu ñu ne yóbbu ko boo dee nga jox ko mu ñëw bët set ñu delluwaat enquête bi enquête la. déedéet ñun yóbbuñ ko hôpital parce que yoon ñooy def seen liggéey comme mi ngi si loxoy yoon yoon ñooy def seen liggéey. est ngeen yoon ne ko gone bu jigéen gi dañu ñun waxuñu yoon ñoo xam seen liggéey naka la. léegi ku wax dafa àgg ci kawam kon. ñoom yoon ñoo ko yóbbu. kan moo leen wax ne. ci rapport rapport rapport enquête bi si ngeen xamee ne loolu. man loolu sax démb laa ko yëg. ci kayit yi ah, ci kayit yi op fële tribunal laa ko gis ci kayit yi. kayit yi yoon ñi nga xam ñoom la fi buur teeg mhm. ñoo téye xale yi ñoom ñoo yóbbu coro. donc ñoom ñoo firndeel ne yegg nañ ci moom. ñoom ñoo yóbbu coro euh, médical bi ak euh, analyse yi ak yëpp ak tout ak tout ak tout ñoom ñoo ko liggéey seen liggéey la ñoom bi ñu paree ñoom ñoo xamal ne ñoo ñu xamal yaayu coro ne ko kii dañu yegg si moom. léegi dañ ñu pare daal di dem jëlaat coro jëlaat ëmmëdi jëlaat euh, xale bu ndaw yóbbuwaat defaat enquette fa ñu tëddoon. léegi bi ñu leen di wax ne dañu yegg si moom viol lañu leen wax. viol la coro mi ngi feebar fañ ko tëral. waaw dafa feebar di katkati ma ne ko yow la mu ne maam dama feebar di lox coro mineur la. yow vérifié woo ndax lan la wala. non man mënuma xam. feebar bi lan la. da nga ko njortuwul sa njortuwuma dara man njortuwuma dara xaw ma dara tubay ji fa laa ko fekk mu jël oma ñantantam tantam oma fóot yëre yi daal dem tëdd sama lal. xotteeku xotteeku bi moom coro si boppam. xotteeku bi nag noo ko gisee. xotteeku ni ma ko gisee. Mhm. moom moo doon yegg sama xotti tubayam. déedéet ban nga gis xotteeku na. comme taas bi taas bi ñun ay mag la ñu xam nañu ndaw mais man xaw ma xawma xalaatoo ko xalaatuma ko man ci yoon dem ba ci yoon ci yoon ci yoon dem bi ñu ko génnee ci ci sept heures man dama kiris dama jooy. mais muy kët-kët yi ñëw àndaale tubay bu ku di ko fóot. non non léegi xel mënul daw. non non kët-kët fekkuma fa kët-kët bi. ah fekkuma fa fekkuma fa. damay jaay man. Ah, kon ban moment nga ko yëg bi nga bi nga dellu ñibbi si. man ci guddi gi maag papa xel bi ñoo jiitlante bi ñu koy woo ñu jiitlante man may wàcc topp si moom muy muy jiitlante yor portable am man ma dugg summi sama yëre parce que gëj naa jaay ma ñëw du gis papaam di wax. alors leneen lu jaaxalaate mooy Coro fan la jëlee portable parce que waa kër gi. Coro amul portable dégg ci information xoolal Coro barke yonent bi amul portaabal Coro amul portable Coro amul portable. bu ma kaamir tegoon ma teg sama loxo Coro amul portable. ñaari portable ñu koy jiiñ. ñaari portable dañuy wax rek dañuy mbal ak ñoom parce que seen doom fa lañ jëlee numéro Amady ba mën a euh, def euh, nuñ koy waxee sax. enquête bi si seen doom lañ ko jëlee seen poste doom la ñu jëlee numéro bi ñu fekkaat seen doom école mu wax ne sama far la mais dañu bàyyante. léegi ñoom si diggante bi ñu xam ne coro bi yoolee nañu ko ñoom si lañ jëlee wax ji di ko tas di di wax wax bu ñaaw di tas ñoom waa viol bi Sénégal kër mu këpp yëg nañ ko man sama nekk États-Unis ñoo ma ko jëkk a yëg sama rak mbokk yi nekk États-Unis ñoo ma ko jëkk a euh, waaw. naka la que lépp si même heure la lépp si même heure la parce que man dama wàcc a dog dog jot na laay duggee sama kër dog jot na laa déggee yuuxu yi dog jot na lan jëlee coro yóbbu. coro lañ ko jëlee yóbbu. kon fu fa lañ ko jëlee. fu nu ko jëlee. Mhm. sama kër lañ ko jële maanaam waa yoon ñoo ñëw jël si ko foofu. waaw. waa yoon léegi naka lañ def ba jël si ko. lan lan lan lañ ko accusé waaw fan la ñu jaar ba lan lañ ko jiiñ ba tax ñu ñëw jël si. waaw xam nga dañ ne xale bi dafa ànd ak coro jëndi këriñ. dafa ànd ak coro jëndi këriñ. comme ànd ak coro jëndi këriñ léegi ñoom bu ñu koy seet danaa coro la àndoon jëndi këriñ léegi nag coro ma àndu jëndi këriñ léegi li ko def si diggante bu mu jënd jëkkëriñ mooy lii lenn jaaxalaate de aussi nee nañu coro jóge na si si buntu kër ba ba ñuy wër xale bi. ànd ak ñoom ba foofu. wan leen kooku amul loolu amul. c'est pas vrai loolu amul. loolu amul. loolu amul. yàlla moo nu tiim nanu rafetal wax yi. yàlla moo nu tiim danoo nekk ci koor dañuy dee. lépp fi lañ koy bàyyi nañu wax dëgg ndax kenn ku nekk yàlla moo la tiim te dangay dee. rawatina ngay sosal sa moroomu jullit wala sa moroomu doom di di avertir sa doom. léegi moo wax enquêteurs yi que ne Coro moo doon ko gunge woon ànd ak moom di jënd këriñ. moom Coro moo ko wax. bi ñu ko jëlsee. waaw. Euh, leneen luy euh, tukkee ci biir euh, tey waa Libération wax nañ ko sax ni que enquête bi ba ñu interroger Coro Coro dafa nangu maanaam wax wax yi ñu koy takkal daf koo nangu. waaye yooyu yëpp ñoom xamuñu ci dara parce que ña yor saytu ja euh, ñu yor maanaam liggéey ba ñoom waxuñu kenn liggéey bi nii la demee ñoom ña nga yor seen liggéey di ko liggéey ak ñañu ko bokkal kenn mënagul xam tant que liggéey bi eggul ñuy wax ñëpp gisuñu benn li ñuy liggéey xamuñu ci dara. dañoo sukkandiku ci enquête bi nga wax ak li nga wax léegi ne rapport enquête bi tam xaw naa génn te tiskat xibaar yi mun nañu am privilège bu xam ko mu ne woon dafa fekkee léegi jóge ci fekkee bi ne moom moo jàppale mama pour mu faat ko looy tontu ci loolu loolu waa ku ñuy violé noo jàppale ma mama pour mu faat ko ku ñuy yegg si yow ne la boo waxee ma rey la dama lay rey xam naa fi ngay jànge xam naa say rakk xam naa sa ñëpp dama lay rey gestu def li mu def noonu Coro mi ngi mi ngi fi ñu ko teg mi ngi feebar ñun mineur la ñu yor xale la ñu yor mi ngi feebar ku jur doom xamal ne doom dafa metti dëgg la ñu ngi jaal ki faatu mais ñun tam sunu doom fa mu tëdd ne ah metti na la dal metti na max ma ngi feebar amul benn cër boo xamante ne bii mat na ndigga ma ngay metti mi ngi feebar ñu ngi jënd ay garab di ko jax ñoom ñii nga xamante ne ñoo jël coro ñoo jël coro di ko di ko yóbbu di xam ñoom xam nañu matière bi nu mu demee ñoom ñooy liggéey kenn mënu xam li ñu liggéey lan la mbete ñoom ñu àgg si bés bi ñu waree wax liggéey bi lan la ñuy wax ñëpp comme nii rek nga ñëw ñu taaj la ngay wax ngay wax. pourtant presse bi dina am souvent accès. ci presse bi dañ fa dem xaaral tuuti. dina am dina am accès ci rapport wu nga xam ne moom la euh, euh, légiste beeg ñeneen ñi di def euh, rapport yooyu noonu souvent moom la lu ci mel ni Libération di publier. ci wala ñoom sa la ñu jot di ko exploité loolu moo waral ngay gis ne presse am na souvent ay sources yu leer ci li muy wax. man de yooyu yëpp presse moo ma ko xamal man presse si loolu laa ko dégg man sama portable démb ak tey laa commencé gën a connexion di dégg lépp di dégg version yëpp. mu jaaxal ma mu nekkee mooy. Mhm. nee nga rapport ci kawam. waaye yaa ngi dàq le fait que ñeneen jàpp ci même rapport bi pour wax ni que Coro moo jàppale pour loolu amul foofu la jafe-jafe loolu amul. mais gëm nga rapport bi li mu wax ne yegg nañ ci kaw Coro. gëm naa ko parce que maa moom sama sët. léegi gëm nga rapport bi journaliste yi bind ne ci rapport boobu lañu sukkandiku gu wax ne Coro moo jàppale mama. waaye Coro lu mu jàppale mama waaye mama ko ñu jàpp day say loxo day tàppee say tànk. ku ñu jàpp bu ñu la jàppee bu ñu tàppee say loxo loxo yi day gën si tànk yi. mais xoj bii moom moo xoj loxo yi xuma moo génne si loxo baatu Anta Ndiaye xanaa nopp dof moom du wax bu dofee ñu koy dégg dofuñu. mais est-ce que euh, sa sa doom ji ngay wax Coga mos naa ñëw wax la lu mel ni menace ak loolu ak lan moo tax moom ma taamu ko pour ngi tëddee ko. non non mosuma wax ma menace mosuma wax benn menace bu ko nit def ndax man sama kër damay tëj sama buntu kër bu wàccee du jàngi sax cours de vacances si biir kër gi la ñuy jàngee man sama kër. ku témoyee sa koñ ba ña ña baax day lax sama kër man dama koy tëj dégg nga kon coro amul ku koy menacé. déedéet alors alors ma ma soxna si euh, kër gi ngeen dëkk ak waa famille bi ñu rey xale bi ak fa mbir yi xawee dox naa fa dox dox. mais boobu moom ba nga fa doxee dox xayma nga baal ma bi xayma. war naa toll ci 500 euh, euh, mètres wala lu ko jege. 500 mètres lu ko jege. waaw li li ñu jaaxal mooy lan naka lañu ñu ñoom ñett ñëpp. naka la ñu mën a dajee foofu. waa léegi boo xamee sa waay xam sa sa sa xarit waayam ngeen nekk lu yàgg mu di ko doxaan ngeen miinante bu la waxee dama lay yóbbante si diw kaay di waxtaan ak yow booy egg France doo ko yëg. ndax ah, yóbbante xale ci moom ak Coro dox parce que moom moo jël coro yóbbu ko foofu. mais ba ci biir bâtiment bi lu tax loolu waxtaan foog naa ne. non non moom booba bëgg na li mu bëgg si coro. d'accord voilà dama ne dama ne dama ne dama ne bu loolu parent ki ñu rey. Mhm. dégg naa démb benn audio nee na man bi ma toxusee moo ma daan dimbali pourquoi baax bu dégueulasse baaxul moo ma daan dimbali man maa ko jëkk fondement bi ma ko jëkkee fondement moom mu ñëw ma feebar ci diggante mu ñëw di liggéey duggaat sama duggaat sama kër meetar continuer 10 mètres. ma woote ay fameem fameem yooyu tey nekkuñu nalaw nañu ma leen woowee ñu ñëw pour lii mooy lan yoon ne nañu ko toj ma ne ko man duma toj tabaxu kenn mais baalu ma ko bés si raat parce que maa moom sama kër maa ko jëkk jënd jënd yor samay titre foncier yor samay kayit ñu nekk si loolu en boobu noonu sax man tax na man duggante noonoo man non non non non non non neexawuñu non non xale yi man dama yor ay goro man maa moom sama kër damay xëy jaay dama yor ay goro goro yi dañuy demlante dañuy demlante parce que bu ñu leen àbbee ñu àbb leen bu ñu leen ñaan ñaan leen parce que à contre dëkkandoo la mais man sël bu ma nekkoon sama kër man sël ñooñu duñ fa dugga dimbali boobu muy wax nag amul moom place bi mu am marché di jaay place boobu laa am marché di jaay muy jaay may jaay courant boobu man dama am sama courant am sama ndox sama ndox moo ma jiitu ma soo ko toxu si kon nit sax même nit boo ko dimbalee te ngay jullit waroo ko wax parce que nit ni ngi gis mi ngi yàkkamte ku mu gis ba dimbali la ndax li ngay dimbalee nit moom ngay fekk bar sax kon rawatina bu loolu amee ñoom ñu taqale di wax lu ñu xam rek di ko teg ci sama sët bi sama sët bi coro mbuub mineur la demul dikkul man mi maam dew ma dikku ma yaay ma dem ci am demul dikkul papaam demul dikkul man samay doom dóoru waar la ñu xam si bisiwaat ci kër gi ma dem ci am seen yaay mooy sama première goro demul dikkul barke yonent bi déggal na ma yem na samay loxo Coro Mbuub madame lu mu jur billaahi day barkeer kon Coro Mbuub lu ñaaw lu ñu teg si deram dañu am ay doom te yàlla day atte am na ay mag na mag nday ami mbuub mooy taaw bi Coro moo si toppa xadi toppa si beneen xadi bi toppa si voilà xaddi bu mujj bi moo maase kii nii voilà mais mais àddina góor gu baax hmm. nañu xool li ñuy wax di ko sentantal àddina yàggul àddina yàggul bu ñàkk pare di ñànki mais waa ji li wax ne noo bokk mbir moom may dimbali c'est pas vrai kooku bàyyi naa ko ak yàlla ak yonti yàlla moom buddu kanti moom am marché di liggéey moom laa am marché di liggéey man fii laa juddoo sama yaay fi la nekk sama baay li fi nekk fi la nekk mais aw ma problème ak nit ñi aw ma problème ak dëkk yi cooroon nag mineur la xale nañu nañu bàyyi deram bi ñuy yàq dañu am ay doom bëgg a jekk-jekkal mën ta tax ñu fat di yàq sama deru sët dañ bàyyi sama sët bi wax ji bari na ñaaw na salte na waaye yàlla mooy leeral jaam yi